vraiment li nga wax rek biñ ñëwee fii gis nañ taxawaay boo xam ne suñu xol sedd na ci ci tournoi bi nga xam ne waa Tànk seet ñoom ñoo ko def pare na ko monsieur le maire honorable député Cheikh Seck mu yabal ma fii nekkoon Dakar amoon yéene ñëw te jàppoon naa ne sax balaa yu fee jeex doon na ñëw waaye comme mi ngi assemblée doon def ay liggéey moo ko taxa tardé ma ñëw fi teew ak adjoint maire Ousmane Niang mi sama wet ak euh, adjoint maire euh, Ngone Ndiaye ak euh, Ndeye Fall mi nga xam ne moom mi ngi ci cabinet madame la ministre faatu Diané ak conseil yi ñu fi fekk yëpp ak yi ñu fi àndal vraiment Samba Awa bi suñu xol sedd na gis nañu fi taxawaay boo xam ne lépp loo xam ne ñi ngi ko ci doon wut muy tournoi boo xam ne dañ ko def pour amitié pour xaritoo pour bennoo vraiment lool lañ fekk fii ci Dangu Sène xale yi mobilisation bi am na solo football bi neex na macha allah mais président rek mi ngi leen di sant di leen gërëm ci li nga xam ne moom lañ ko ko tuddee vraiment mu def ci lu am solo dawal ci yéenam démb la ñu fi yebal maak Serigne Touba Sène ak benn délégation ñu ñëw ne jaar sama doomu ndey As seen mi nga xam ne mooy maire wu Dàngu moo ñu dalal vraiment woo xale yi yóbbu jox leen cadeau yi ñu jox mu génn fi enveloppe toll ci téeméeri junni ak 4 sœurs de maillot ak i bal vraiment di wax ne mi ngi kontaan di ñaanal xale yi lii ñu tàmbali suñ borom jëmale ko kanam muy juboo àndandoo nekk benn waaw Cheikh na kenn du wax ba paye te waxoo ci li tax xale yi tuddee ko bis bi mooy daa bokk nekk ci arrondissement nekk ci département bi wuuf ñëpp jaboote ñëpp amul xaaj ak seen moo tax beneen commune bu bokk te commune mën a organiser li tuddee ko ko vraiment moom Cheikh nekkatu Cheikhu Ndindi rek Cheikhu département bépp la loolu moo waral lii tey mu ñëw yónnee woon ñu enveloppe 500000 ak lii nga xam ne mooy mayen yi ak football ak ak bal yi vraiment xeeb di ko xeeb lool xam naa li ci des dinaa jox action maire Ousmane mu àggale ko. je remercie tout d'abord euh, toute la population de Danksen notamment monsieur Serigne Sène opérateur économique et grand ami du maire et honorable député Cheikh sec donc ma présence ici au stade euh, euh, remet deux choses sur la table le fait que Cheikh est d'abord notre maire notre député mais aussi un ami et aussi un oncle Donc, s'il n'était pas là, partout où il pourrait être au Sénégal, s'il me demande de venir, j'allais venir présider ou bien euh, honorer de ma présence ce tournoi. Ce n'est pas une première pour Danksen, parce que c'est peut-être la deuxième ou la troisième fois que les jeunes de Danksen euh, parrainent un tournoi de lutte ou bien un, euh, un, truc, euh, un pour le maire Cheikh Parce que c'est son envergure régionale et nationale qui fait que partout dans la région, partout dans le département, les gens le sollicitent pour des tournois de ce genre et pour des fêtes de ce genre. Donc nous sommes très honorés aujourd'hui d'être le parrain de ce tournoi de l'amitié. Un tournoi de l'amitié qui vraiment dit son nom parce que c'est véritablement de l'amitié. Et une très forte délégation est venue de Nindi, une très forte délégation. Euh, une délégation composée presque de tous les composantes de la population de Nindi. Il y a d'abord le conseil municipal, il les jeunes, il les enseignants, il y a les, artisans, tout le monde est présent. Ce qui montre la relation que Cheikh euh, est en train de développer avec toute la population de l'île. C'est plus d'une centaine de personnes. C'est plus d'une centaine de personnes. Donc ça montre nettement la relation qu'il est en de développer avec tout le monde. Nous sommes très fiers de lui et nous sommes là grâce à lui. Il a fait aussi d'énormes sacrifices. Parce que rien qu'hier, il a envoyé 500 000 francs et 4 jeux de maillot, des ballons et la coupe que vous avez ici devant nous. Donc ça, c'est un effort qu'il avait fait. Et c'est M. Abdougué, son conseil spécial, qui était de passage hier à Dank, le remettant à son ami, euh, qui le, le remettant aux jeunes devant son ami et frère Seri euh, Assen, qui est le maire de Dank-Sen et honorable conseiller au conseil des collectivités territoriales. Le maire reste, l'honorable député reste ouvert à toutes les communes du département et de la région. Je ne parle pas de l'arrondissement seulement, des départements et de la région. Parce que c'est un député du département, mais son envergure nationale lui donne la possibilité d'agir partout dans la région et partout au Sénégal. Et cela est en train de se faire. Les jeunes de se rapprocher davantage de lui, parce que c'est véritablement l'ami des jeunes. Il fait au niveau du football, au niveau de la lutte, au niveau des, des, des, des activités culturelles et au niveau des activités de loisirs. Donc Cher est là pour la jeunesse, pour les vieux, pour les femmes et le monde. il reste ouvert à tout le monde. Et il tend la main à tout le monde.